nga xamante ñoom ñoo euh, liggéey euh, réseau social boobu ci euh, start-up bi tudd Upcore donc c'est c'est bien sax Amadou Upcore. waaw c'est bien Upcore. Upcore moom mooy start bi nga xamante ñoom ñoo tax taxawal réseau social bu xamante ne 100% Sénégal la parce que. monde média lañ nekk monde communication lañ nekk et euh, yeneen réseaux socia sociaux yi nga xamante ne ñu ngi euh, jóge à l'extérieur jël nañ benn ampleur au Sénégal donc euh, c'est pour cette raison on a décidé de parler ci li nga xamante ne moom mooy ndaw sénégalais ñu ngi koy taxawal def ñuy ëpp na ëpp na nga dikkal ñu déjà rek ci jeunesse bi waaw ëpp na c'est un réseau social si ni ko mën a mm-hmm. mais réseau social boo xamante ne c'est fait par des sénégalais pour des sénégalais nga xamante ne dañ ko def te mu mu dëppoo ak suñuy valeurs c'est-à-dire c'est un réseau social boo xamante ni day tenir en compte nos valeurs et qui nous protège mm-hmm. pour donner un exemple euh, li ñuy tuddee ay postes à caractère obscène euh, mënul am ci ëpp na il suffit que deux personnes signalées ko pour mu disparaître mm-hmm. entre autres mais à la base bi ñuy xalaat ëpp na dañoo xalaat ne Sénégal en termes d'indépendance digitale war naa mën a am son propre réseau social sénégalais mm-hmm. de pays comme la Chine comme, comme d'autres pays aussi ont leur propre réseau social leur, leur propre réseau sociaux mm-hmm. donc Sénégal war naa mën a am son son propre réseau social benn deuxièmement ñu xalaat tamit ne d'après les chiffres yi ñu am euh, bëri na ci egg na ba ci moitié ñi utiliser réseaux sociaux yi am na ci ñu bëri ñoo xamante ni seen bindum ndeyjoor jubbuwuñ ko maanaam français bindum français jubbuwuñ ko du tout euh, on a pensé aux commentaires audio commentaires audio ñu bari ñu ngi koy wax ci biir Facebook mais en fait am na ëpp na Euh, donc ëpp na day am ay commentaire audio gis Aïcha ne ko Aïcha sa morceau bi rafet na commentaire audio loolu mën naa ne ci biir ëpp na euh, def benn post audio ci ci benn fil de publication loolu mën naa ne c'est-à-dire euh, mi ngi mel ni foo xamante ni Facebook dangay mën a dugal photo mhm. mën nga dugal image waaye ëpp na dañ ci rajouté loo xamante ni yeneen réseaux sociaux yu amuñu ko mooy mën ngaa def audio bàyyi mu dem suñu mbokk ustaas yu baax yooyu yi nga xamante ne yenn saa yi dañuy xamal yenn ay yu baax yi nga xamante ne day baax a jàng yenn bés ak yooyu nga xamante ne dañuy sàkk mu saaw di ci jaamu yàlla ñooñu mën nañ ko def ëpp na nga xamante ni boo ko dugalee ëpp na def ko public ñëpp ñu bari dañ koy jot entre autres ci ci tënk rek xaat ëpp na lii la amagum ci ñu fi fekk en termes d'innovation alors Facebook boo xoolee euh, moom moom moom marché bi mën nañ ni moom moom marché bi. parce que on dit qu'à peu près un million de Sénégalais ñu ngi koy utiliser si si si euh, chiffres yi ñu mujj a dégg ñun donc wala boog jege na ko moom la ko matul jege na ko ñu ngi koy utiliser euh, yéen naka ngeen mën a wala boog naka ngeen yéen stratégie ngeen xalaat a teg ngir mën a am benn part de marché boo xamante ne day conséquent. alors Euh, ñu nekk Facebook sax ëpp nañ euh, d'après chiffre Facebook moo ñu waxoon. Mhm. seen nee ëpp na 3 millions de Sénégalais. Mhm. waaw egg nañ sax ñoom ci degré de précision ba ni am na benn xaaj bu nekk dakaar mhm. am na beneen xaaj bu nekk tubaab ñoom seen chiffre loolu la joxe. Euh, muy mel ni région de Diourbel quoi en général. am na beneen xaaj bu nekk région de Diourbel. ñu seetlu ne boobee nekk région de Diourbel nag justement lu ci bëri ñoo xamante ni jàngum tubaab dugguñu ko toog. ba ci sax feneen fépp ci Sénégal am na fépp. donc ñun en fait suñu positionnement foofu la nekk ak surtout yee Sénégalais yi en termes de communication ñu xam ne euh, c'est une fierté sous l'angle dans la mesure où c'est un réseau social boo xamante ne ay Sénégalais ñoo ko defar ñëw ñu rek copier li fi am dañoo ñëw rajouter am na ay baba ay ay ay ay euh, fonctionnalités yu ñu rajouté yoo xamante ne ñeneen réseaux sociaux amuñu ko te en plus de cela euh, ça nous protège mm-hmm. waaw déjà ëpp na comme ni nga ko waxee de euh, li ñu njëkk a mooy la nom. oui <laughs> c'est ça son sénégalais. oui même les publications ça s'appelle ëpp la si si je si la noonu la xam nga Twitter. boo alors xam nga Twitter bu dugalee benn bu dugalee benn post. Mhm. ça s'appelle un mhm. maanaam yooyu ay rek tweet boo seetee mooy sabu picc rek. Mhm. loolu lay fini donc ku nekk na ngay ñëw ak sa touche ñun maa ngi fàttaliku biñ ci xalaat. à l'époque amoon na ay tur yu bëri ay tur anglais tur yu ne mais man j'ai tenu à mettre un nom typiquement sénégalais et à l'époque dafa am benn expression bu ma doon marqué ci xale yu jigéen ñi bu ñu gisee une chose qui sort de l'ordinaire rek dañ naan ëpp na gis nga te en vrai. ak xeetu ngéwél gi ñu ci àndal ëpp na. waaw waaw ak ñu koy defee en fait et en vrai quelque chose à publier dans un réseau social lu ñu war a lu ñu lu ñuy publier d'habitude foofu mu dem ba egg foofu ba egg ci ëpp na mhm. soit ëpp na ci lu baax ëpp na ci lu rafet mhm. na il faut que ce soit extraordinaire quoi sinon du du jar publier mhm. donc loolu tax ñu tuddee ko ëpp na upload justement ça c'est c'est dans le même sens en fait onomatopée boobu ci noonu la jógee upload mooy nga gis loo xamante ne daf lay yëm nga ne upload donc noonu lañu ko donc on a vraiment tenu à garder cette touche sénégalaise là. Mhm. li ëpp bi lu tax la ëpp de l'anglais c'est parce que bon on espère que peut-être un jour incha allah yàlla mën na loolu ëpp na sera un réseau social qui sortira du Sénégal et les autres pourront le lire en fait. comme nous le disons ëpp la ëpp na mën na nekk parce que Mark Zuckerberg xamuloon ni Facebook dina yegg fii. yàlla dëgg la loolu dëgg la. leneen loo xamante ni daanaka moom mooy jafe-jafe si réseaux sociaux yëpp muy wàllu régulation bi. Euh, surtout que bi nga koy tàmbali sa wax wax nga ko dañoo am ay réalité au Sénégal. on a des difficultés par exemple ak si si Facebook dañ fay gis des dérives euh, si yeneen réseau yi ku si mel ne Snapchat yu si mel ne euh, Instagram ay dérives yoo xam ne dañ koy si nan ngeen fexe yéen réguler loolu yëpp. ci réseaux sociaux yi en général. dañuy gis ñu bari ñoo xamante ni dañuy yëkkati ay kaddu di teg kaddu yu ñaaw di ko teg. kaw kilifa day am surtout wala ñu jël ay kàddu yu ñaaw teg ko ci aw nit lambda rek day am waaye biir ëpp na pour mu am day jafe ndax ëpp na dafa am ñun on a un système de signalisation très très très très euh, sévère mooy lan fii benn poste boo kenn dugalee il suffit que ñaar signalé ko pour mu tëb waaw tey jii bu kenn waxoon dara ci je prends un exemple yàlla na ci yàlla musal bu kenn waxoon dara ci Amadou Puy il suffit que Assane ak Aïcha signalé ko pour loolu loolu tëb kenn du ko gis moom moom mi ko poste rek day yaakaar ni moom moom dana nekk ca moom moom moom mën naa def ngir mu bañ koo defaat waaw ngir moom mun naa jàpp ni li mu li mu bind wala li mu dugal dem na parce que tamit li tox ñu dugal boobu mooy ëpp na tamit la valeur beneen valeur ajoutée bi ñu am par rapport ak réseau yeneen réseaux sociaux yi dafa am ay publications publiques mais réellement publiques mhm. mooy lan quand tu fais bu fekkente ne y' a 500000 wala 300000 wala 700000 sénégalais sur le réseau quand tu fais un poste le poste est visible de tous à la seconde qui suit. Mhm. waaw donc loolu il faut que vraiment mu am benn mécanisme de régulation bu bu sévère loolu bokk jotewul dara nag ak robot yi nga xamante ni dañoo nekk ci suuf application bi di liggéey di xàmmee yenn baat yi nga xamante ne ay kàddu yu ñaaw la buñ ko gisee ci benn poste rek éliminé ko. mais est-ce que wóor na. sous quel plan. Euh, nga dugal automatiquement rek nit nit visualiser ko. alors tu as deux possibilités. ou même plusieurs. ëpp na jox na la possibilité nga dugal benn post boo xamante ni poste individuel la. Mhm. mooy lan loolu sauvegarde la mooy sauvegarde. mooy comme ni ngay sauvegarde nit nit nit di sauvegarder photo Facebook am na ñu koy def wala feneen. wala nga def benn poste boo xamante ni sa waa famille on a nouveau cercle qui s'appelle famille. te rapproché rek ñoo ko mën a gis. Mhm. comme nga def benn poste boo xamante ni say amis ñoo koy gis. ndax ami am na ëpp toujours. Mm-hmm. comme mu ne benn poste boo xam ne soo neexee ñëpp a koy gis. maintenant yow miy posté yow yaay xool ndaxam li ngay posté tu veux juste les gens de ta famille ñu gis ko. Mm-hmm. wala juste tes amis. wala boog da nga loo xamante ni da nga mu tas la. une question qui m'interpelle aussi moom mooy lu jëm si wàllu données personnelles yi parce que à chaque fois depuis quelques années dañuy euh, accuser ñi nga xamante ne ñoom ñoo utili ñoo ñoo yore euh, réseaux sociaux yi dans le monde que ñu utiliser euh, données personnelles yi seen utilisateurs yi à des fins commerciales ce que yéen vous avez des garanties par rapport pour vos utilisateurs pour le Sénégal c'est un grand enjeu ça va être la première fois pour le Sénégal inchallah que hébergés ici au Sénégal. Mm. waaw ndax ñun sénégalais ñu ngi Facebook. Mm-hmm. ñu ngi LinkedIn ñu ngi ci yeneen réseaux sociaux yëpp WhatsApp. Mm-hmm. mais ñooñu ñëpp ñu ko hébergé c'est à l'extérieur. Mm-hmm. ëpp nag ce sera hébergé ici au Sénégal. kon nit bu ci amee problème automatiquement mën nañ ko lijjanti fii. mën ko amee problème mën nañ ko lijjanti fii te en plus de cela ce sera sous la juridiction sénégalaise. d'accord sànq yaa wax lu am solo mais Charles mu ma ciy interpellé euh, ne ma euh, est-ce que wóor na bu fekkente ne par exemple nee nga bu nit ko euh, dugalee benn benn benn benn poste su fekkente ne am na ay signalisation lu wee lu weesu ñaar rek mën nañu dindi poste bi mais bu fekkee nit ki def ay noonam dañ ci làqatu et tout wala def ci ay kii est-ce que yooyu aussi yéen a koy sóoraale ndax amu leen seen seen seen test bopp wala seen surveillance bopp. Aïcha sa question dafa pertinente. Mm -hmm. mais ce qu'il faut savoir c'est réseau yu mel nii on est am ay fonctionnalités de base am ay carcan de base bàyyi ko mu daw et selon le comportement des utilisateurs ci la ñu mën a xam ci ban sens la ñuy orienté wu pour aller mais l' essentiel c' est de savoir que nous notre politique c' est que Sénégal réewum jullit la réewum ngëm la en général waaw jullit chrétien ku nekk ak yeneen ngëm-ngëm réew réewum gëm gëm la euh, réew mu la donc lu rafet rek a fi xaj donc dans ce sens là ñun on a ça à l'esprit et bi ñu defar réseau bi c'était vraiment ça quelque chose qui protège par rapport à nos propres valeurs donc euh, c'est important pour nous loolu bàyyi nañ ko xel mais am na ci loo xamante ni foog ñu bàyyi mu daw ñu xool lu ñu tuddee le comportement utilisateur mhm. après ci la ñu mën a xam ñun li ñu yokk lan lay doon mhm. ak ci ban côté boo bëgg léegi ñaata ñaata moo la def ëpp na ñu ngi ko créé en ñu ngi ko lancé en en 2018 mhm. man maa ko lancé man maa doon liggéey ci benn entreprise euh, amoon fa CDI am sama propre projet euh, waxtaan ak sama patron négocier benn départ dem am sama idée lancé ko noonu la demee je l'ai lancé avec mes propres fonds ëpp na noonu la demee bi ma ko lancé man ak ñi ma ko àndal j'en profite pour les féliciter tous mes collaborateurs euh, bi ma ko lancé ñu lancé ko en en décembre 2000 en en début 2018 presque bi ñu ko lancé dafa am benn version bu ñu njëkk lancé c'était une version hybride mu xawoon am ay yéex-yéex ginnaaw gi ñu nëbbutuwaat liggéeyaat ko waaye fii mu ne depuis juillet 2019 on a déployé une version boo xamante ni c'est une version bu mucc ayib Android rek la nekk gum waaye fii ak ay semaine wala fii ak ay bës sax naa mën a joxe date ci version iOS bi ni ñu bari ñu ngi ma koy laaj version iOS bi kañ mu génn mi ngi ñëw léegi insha allah ndax tendance gis nañ ne tendance bi tendance bi mooy Sénégal de plus en plus même ñu yor Android mm. dañuy dem uti ay ay iOS mm. donc fii ay jours incha allah naa ko dugal ci réseaux sociaux yi je pourrais donner une date exacte pour les iOS. fan toll si euh, nombre d'utilisateurs. fii nii on a dépassé les dix mille téléchargements. Mm-hmm. Euh, il y a il y a un mois de cela et puis le Open a été téléchargé dans onze pays dans le monde entier. actuellement bon par la diaspora et par d'autres gens aussi honnêtement. donc ëpp na ça s'écrit U P apostrophe N E U pour euh, euh, sénégal yi nga xamante ne bëgg nañ euh, apporter seen sen seen soutien à entre euh, frère euh, El Hadj Amadou Pouy bi nga xamante euh, li ñu ko doon wax parce que ça fait des semaines ñiy toog ci plateau bi dañ naan ma le made in Sénégal dañu koy indil. Mm-hmm. donc c'est bokk na ci li tax tey ñu gën bi ñu ci gisee rek ñu ne nag on va sauter sur cette occasion essayer apporter ñun suñu pierre à l'édifice. merci merci boo xam ne innové na nekk suñu futur marque su Euh, euh, Zuckerberg tur boobu laay bañ nag. futur Amadou Pouy. <laughs> yàlla mën na ko macha allah. <laughs> waaw dangay gëm sa bopp ñu ngi lay jaajëfal lu baax a baax Assane yow tamit ñu ngi lay jaajëfal. jaa ngi jëf Aïcha leen jaajëfal mbokki euh, téléspectateurs yi ak ñi ñu seetal plateau bi. ñu seetal plateau bi léegi léegi mbokk yi dañuy dem seeti actualité ànd ceeg Alioune Sow.